internet Univers Info TV euh, Rewmi Buzz Dakar Plus ñu ngi leen di nuyu bu baax tey nag ñu assisté woon mariage kii nga xamante ni moom mooy Sabel Sabel nag euh, euh, sœur la ci Momo Dieng <laughs> waaye sœur la ci Pama aussi mu nekk une famille boo xamante ni macha allah ñëpp leen di seedeel seen yaru ñëpp leen di seedeel seen am diine waaye ñëpp leen di seedeel seen daanaan mm-hmm. benn daanaan lañ ci toogal nii nag <laughs> fekkoon mu maye ba pare. naa ni tey moom kontaan nañ kontaanuñ ndax seen seen seen seen seen sœur baa ngi dem. Euh, alors Momo ñu ngi lay nuyu bu baax. mais Gallo maa ngi lay fay mon frère. Mhm. ah di nuyu internetu univers info mhm. yëpp. Mhm. vraiment di bëgg lol seen liggéey. Ah, di nuyu Sénégal yëpp. vraiment di am mbégte lol. Uh-huh. tey nag dag ñoo fekk nag ñuy maye soxna. effectivement donc euh, mu doon fierté. ah nag ñu maye nit ku nit ku baax. nit ku am yar. donc euh, parce que tamit mën nga doon mag. Mm-hmm. nit ki mën nga ko féete mag ba pare jox ko respect. mais Sabel ku am yar la. Mm-hmm. ku am diine. Mm-hmm. am lislaam ñun dañ ko sonal rek. kon am gis nga pamma ni mu ko sonalee. nee naa ko fi mu ne affaire dara nga ci bëggul. gis naa nga may nax na nee na dina dem nag. <laughs> ah vraiment ñoom fierté lool nag. Ah. di may sunu sœur. donc diko ñaanal sey bu barkel mm-hmm. mu jur ci ay njabot yu barké mm-hmm. voilà ngi non alors Momo c'est quoi le secret parce que une famille dafa xawa sacré. Mm-hmm. do aussi légui jamono yi dañuy gis famille dañuy dispersé wu mais yeen gisunu ko ci yeen ma sha allah ma sha allah. toujours yeen ngi bolé yeen ngi solidarité seen bir euh, alors ce euh, digënté ak Sabel. muy sa dom bàyyi ce digënté ak Pama complicité bi ci am. c'est quoi le secret. wa mais c'est parce que ño bokku ndey ak bàyyi ñun ño yarondo ci ben képar donc kenn ku ci nek que bi nek sa morom mo nek ci yow donc ku xol sa morom tamit sa bop ngay gis donc j'espère que ñun nous takaliko pa bi ñun ño nous ñun ñëpp waaw ñun ño nous ñun ñëpp mo am chance euh, def ci ñun ay euh, valeur ay jiko ne ji kenn ku ci nek rek bo sa xel day dal ci sa parce que man ngeen mën nañ ne sax li ñuy dajaloo peut-être que li ñuy gis sax du bëri mais ñu ngi gisante feneen wala ñu ngi toog di waxtaan xam nga ñun moom bëgguñu lépp lu ñuy def muy. voilà muy siiw wala yu mel noonu. donc mais ni ñu mel nii la ñu mel. donc dara changé wul dara soppeekuwul te loolu dañ koy sante suñu wéyjur wu baax wa yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xare ko aljana muy El Hadj Ndiouga lépp moo ko def ci ñun. moo def ci ñun yar moo def ci ñun ay valeur yoo xamante ne tey jii dem bàyyi ñu fi teewul tamit sunu frères yi liñ naan rakk topp mag ah rakk topp mag euh, doom respecté bàyyi mais fii ñun bu wéy jur wi demee sunu mag la ñu jël alpha def ko kilifa maar amed Diop donc euh, ñoom la ñuy roy ñoom la ñuy topp fi ñu teg ba tey am kilifa ba tey fi ñu teg foofu la ñuy tegu j'espère ko loolu moo indi lii lépp moo tax tey ji foo ñu gis ñun ñooy nekk ñun ñooy bokk lépp parce que tamit aussi donc deret la te te te te liñ naan genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko waaw genn golo gàtt na sax laay wax waaye loo ca laal borom da koy yëg alors mu ngi noonu tey moo tax ñu dajaloo fii doon maye suñu sœur maam fierté lool. fierté bu rëy alors ñu ñu ñu tëjee ko rek ak programme yi peut-être c'est bientôt euh, la fin du mois de Ramadan euh, qu'est-ce que Momo en train de préparer pour faire plaisir à ses fans. waaw bëri na surprise yi bëri na donc euh, fan yi yëpp ñu ngi ci répétition yi ñu ngi ci studio yi di liggéey donc euh, gars yi nañu waajal de ndax surprise yi moom bëri na lool. gars yi ko yow pop pop ah. foofu moom dafa mel dafa am loo fa wis moom COP mm-hmm. 21. <laughs> non non non du wis gars yi ñooy ñëw rek gars yi ñooy ñëw di ci jàpp xam nga doo jën ndox la. te non donc métier mi dañ dañ ci nekk ba pare yàlla xam nga yàlla dogal ñu am ci ay soppe. Mm-hmm. donc ñooy ñëw di ñu fekk fu nekk. donc loolu yëpp ñoom la. Mm-hmm. ah c'est ça donc du dara dara dara amu fa nit ñi ñooy ñëw xam nga di ci jàpp waaw di dooleel seen artiste. parce que loolu dégg naa baaxul dañ koy tere Sénégal waaye effort yaa gisee balde maanaam effort daal ñoo yëkkati 500000 jox la di ñaan nag sëy bi ya yàlla defal la jàmm may la ci njaboot gu barkel wa xaw ma kuy nangu sax kuy wàññi. li gën a neex rek mooy mooy ànd bu dugg rek tax dafa ay xol yu ànd allah. ñi ñëpp nii la ñuy nekkee chaque jour lii du tay rek boo gisee toogaay bi nga xam ne naturel la. donc loolu la ñuy dundee chaque jour man ak ñoom. tey euh, ku ñëw fii xam ne defuma dara. Mhm. dañ doon maye rek maye nii sama famille rek ñoo nekk fii mais ñoom samay famille lañ parce que euh, yàlla moo ñu boole te mu nekk lu sincère nag. Mhm. ñu nekk ay nit yu baax yoo xamante ne yàlla xam naa Eh, mo xam lu muy def donc dama len di eh, ñaanal rek parce que li rek dafa reuy ci man lii yëpp jaru koon parce que man présence bi ngeen ñëwee rek dafa am leneen lu ma yëg waaw parce que ño xam da ngeen a passion li ñu mënu ñu ko séddoo moy passion ñu ci dara loolu lañ bok donc eh, maa ngi ñaan yalla suñu borom bi dafal ñu te li ni nek teranga bo xamanteni dañ koy dañuy dem ba suñu ay doom ñuy ndayalante suñu donc di ko di ko di ko defante te incha allah rabbi xam naa ne loolu dina am. ndax dara sax xam nga ak sëy bi moom. Euh, moom ndeysaan da koo kii presque dafa ko bett mu nit ñu bett ñu nit ñu bàyyi ku ci nekk li nga waroon def ñëw parce que ñun ñëpp benn lañ chaque jour ñu leen di gën a firndeel ni effort benn la mosuñu am xaarma yàlla ñun ñëpp suñu biir chaque jour ñooy ñooy waxtaan ñooy nekk ñu ngi diisoo lii dañ ko xeeb. parce que dafa bette ku na xam ne ne ci weeru koor la ñu nekk te moom mooy moment bi gën a loow ci suñu ak carrière ndax lépp day taxaw mais kon yéene woon nañ ko lu nekk waaw parce que bokk ci effort ba pare ah, di ñu siggil ndax kenn déggul ci nitu effort ci dara ku ci nekk ñi ngi waxtaan ñi ngi yeddante ñi ngi kii mariage bi sëy bi doon loo xam ne day firndeelaat vraiment que ni jigéen lii rek moo ko war di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ci sëyam bi li mu ci bëgg suñu borom def ko te yàlla gën a dëggal suñu ànd bi effort egg foo xamante ni fooguñu ko woon ba yàlla may ñu disque d'or ci suñu album bi ñuy waajal ba pare maa ngi leen waxaale ngeen xaar ko bientôt voilà mu ngi ñëw. ban jikko ban jikko moo la gën a neex ci Sabel. Sabel li ma gën a neex ci moom yaay la Sabel c'est une maman parce que bi ñu fa nekkee ku masaan a xiif. lay génne xaalisam dem leen lekk ñëw indi guddi gi QG néegam lay nekk chambre am bu ñu voyagé lépp noonu lay dem man dem naa ba sama ay beau frère bi ñu ñëwee seet si ma bi ñu nekkee France néegam laa ko yóbbu moo leen teral moo leen jox dalal moo leen lépp kon kooku noonu ñun amuñu lu ñu ko waxal ci leneen ndax loolu lañ ko xamal di wax jëkkëram ni ko macha allah am na ku baax parce que jigéen su yoree jikkooy yaay rek dara desatu ko. te jikkoy yaay la yor te loolu laa ko xamal ak wax lu baax ak boole Sabel du féewale foo ko fekk day ree foo ko seen denvalant bi ngay njëkk a seen ree bi la lay may donc laf cat ku xewle nag ñu waxal la lu baax mais maa ngi seeri ci weeru koor bi ni man li ma koy waxal nii moom moo nekk ci moom te ñi ko xam ñëpp war nañ koo xam di remercier ñi fi nekk ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañ lii dañ ko déggoo woon miyaa gisee ñoom ñi fi nekk bu ma limee damay juum jay laa jay naa defaa ak nga xamante ni ñëwuñu sax seen yónnee nañ wax nañ lii dafa neex yàlla na ko yàlla gën a mu jëm ca kaw. amiin amiin merci amiin merci beaucoup Sabel une minute rek xam naa ni amoo temps te euh, taxawaay bi dafa xaw a yàgg d'abord ñu ngi lay nuyuwaat encore une fois di la félicité tey nekk benn jour bu historique euh, ñu may la boroom kër ci weeru koor. d'abord sa première impression par rapport ak euh, mariage bi lan la. Euh, waaw salaamaaleykum sant yalla rek donc sant yalla bu baax a baax a baax ndax euh, jigéen moom taaram sëy la donc boo toogee tey bañ lay may borom kër donc war na nga sant.